الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي ديلو سيوات ci سنو بند bi aju ci wàllu ij ci làkku arab ci sunu téere boobu di muallimul qiraa bu ko defee xam ngeen ne sunu bind bi weesu gisoon nanu araf yi nga xam ni des leen maas maas ba nga xam ni mooy maasu fatxa ma ngoog te muy maas bi nga xam ni mooy rëdd boobu di nekk ci kaw ak it gisoon nañ lenn ci li nga xam ni mooy boole bi ñuy boolee ay araf ci ay baat muy ay baat yoo xam ni baati ñetti araf la te nu gisoon ni buñ leen bëggee boole danuy tàmbalee ci ñaari araf yu jëkk yi boole leen ba pare buñ leen boolee dog caa teg nag ñetteelu araf ba bu ko defee kon ci loolu lanuy woy ba léegi boole boobu nga xam ni moom lanuy boole ay ay araf yi wala ay baati ñetti araf bu ko defee kon nu dellu si waat dal di tàmbale saa su ne nag ndeyjoor lanuy tàmbale kon fii noo ngi am ba ba ra ñaar yooyu la ñuy jëkk a boole ba ra bu ko defee mu jox ñu bara ba ra bara ma bu nu xoolee gis ñetteel ba di da ma ngoog ñetteel ba dala te fekk boole nanu ba ra ba am bara kon dañ ciy teg da ñu dolli ko ci mu doon bara da nga gën koo gaawal mu nekk barada da kon gis nga noonu la ñuy noonu la ñuy boolee ba ra bara za bara za bara za ba ra bara a bara a bara a, bara, a bah rah bara ka baraka baraka ñu jall ci suuf ta ra tara ka tara ka taraka ci top ta ra tara ba tara ba tara ba bi ci topp sa ra sara da sara da sara da ba ci topp sa ra sara ma sara ma sara ma mu jàll bi ci suuf na za naza la naza la nazala na za naza a naza a naza a na da nada ba nada ba nada ba na dha na dha ra na dha ra na dha ra ujali jisuf ja gis nga ja buñ ko takalek araf bi top ci mom gis nga chat bi dañ koy dindi bob bi rek moy dess ja ra jara da jara dah jarada jah rah jara ha jara ha jaraha jah zah jaza mah jaza mah jaza mah jah dah jada' لا جدا لا جدلا kita apa ha za haza ma haza ma hazama ha ra hara qah hara qah حرق ح ر حر ث حر ث حرث ح ذ حذ ف حذ ف حذف خ خ را خرا جا خرا جا خرا جا بچا توپو خ ز خزا نا خزا نا خزنا بچا توپو خ زا خذا لا خذا لا خذا لا. baca top kha da khada ma khada ma khadama da jall ci page bi ci top sa ra sara da sara da sarada سه را سرا ق سرا ق سرا ق شه را شرا ح شرا ح شرا ح شه را شرا ع شرا ع شرع, شرع, Deixa eu tomar por. Só. Da. Só da. Có. Só da. Có. Só da. Có. Só. Da. Só da. Ma. Só da. Ma. Só da. Ma. Dó. Ra. Dó. Ra. Ba. Dó. Ra. Ba. Dó. Ra. Ba. Dó. Ra. Ba. Dó. Ra. Ba. ض ر ضرع ع ضرع ع ضرع ط ر طرع ق طرع ق طرق ط ر طرع ده طرق dah torada toh ra tora ha tora ha tora ha toh ra tora a tora a tora a macam apa ع ر ع ر ف ع ر ف ز م عفوا ع ز ع ز م ع ز م عزم ع ر أرى ضع أرى ض عرض ع ز عزا لا عزا لا عزل ع د عدا لا عدا لا عدلا غ ر غرا ف غرا ف غرف غ را غرا س غرا س غرس غ ز غزا لا غزا لا لا ف را فرا ش فرا ش فرش ف را فرا ض فرا ض فرض ق را قرأ ض ق قرأ ض قرض ق ذا قذا ف قذا ف قذا ف مانغوك بوكو ديفه كون دا نوي دالدي تك في سونو بارام نيان بوروم بي جل وعلا دافال نو توفيق دافال لين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته